cher sécurité au niveau des frontières bokk na xëy na ci li ko yokkoon ndax dañ doon def ay njombe daw dugg Gambie daw dugg Guinée Bissau wala ay bandi jóge ci réew yooyu itam ñëw dugg Mali Guinée Bissau ak yooyu euh, tey sécurité frontières yi dañ cay wax souvent c'est frontière yi dafa mel ni lantinoor ku ñëw dugg ku ñëw génn ban situation lañ am exactement. alors waaw ku ñëw dugg ñëw génn xam nga affaire CEDEAO la d' abord. libre circulation des personnes des biens un de deux mais taxul tam. on a des on a on a des postes de contrôle douaniers policiers armée yaa ngi fa tam. et puis comme ni ma la sànq tam suñ concept de bon voisinage bi ñu ngi koy gën a doxal temps yi temps yi dañoo gën a jubóo boo gisee ak Guinée Bissau. Ah gën a jubóo ay même Mali sax. même Mali am na ay militaires yi fi nekk ay ay ay postes yi nekk au niveau de la frontière ñu ñu xam nga ñun militaires yi am na yu bëri yoo xam ne dañu ko def pour pour pour sécurité suñ dëkk mm. ay ay patrouille conjointe ànd di waxtaan des fois ñuy invité commandant de zone mu ñëw Saint-Louis wala des fois kii dem ñu ngi jéem renforcer. le concept de bon voisin nga xam ne ay information day mën a dimbalante parce que comme li ma la affaire bi mu nekk daal mooy les armées ont compris je crois les pays ont compris jugee. foofu bon voisinage mm. il faut ñu rafetal ko juboo ci biir dimbalante parce que ñun wóor nañu Afrique wóor nañu fi mu nekk nii wóor nañu ne mun nañ mun mun nañ développer baax wóor nañu. wóor gis nañ lu xew ci dëkk bi gis nañ lu xew Europe gis nañ lépp léegi xam nañ ne ressource bi ñu ko gérer pour ñun tam ak nu ñu koy négocier dana tax ñu ñëpp ñu gis nañ bopp ñu mën a développer mun nañ développer. te comme que le gouvernement bees nee nañ mun nañ ko am nañ ay seen projet am nañu ko defee ñu ngi leen di seet di leen ñaanal di leen jàppale ñu ànd si ci nañu wax ñu jàpp ci itam ndax ñu développé parce que fi mu nekk nii itam bëgg nañ développé na ñëpp te war nañ mën a développé na ñëpp ñun voyagé na gis naa dëkk mais seen doom yi gënuñ suñ doom yi gënuñu jàng gënuñu am jom ñun ñoo ëpp jom ñëpp ñu si bëri mais pourquoi doxul le problème il faut ñu xoolaat ko tuuti il ñu jéem a def en sorte que ñu delloo si suñ bopp suñ biir ñu waxtaanaat suñ biir xam ne comme équipe de football waaw introspection ñu xam ne ñun ñëpp ci jàpp mm. ñu ànd liggéey ko te dana baax man gëm naa dina baax. partition bi ci askan wi war a jouer aussi lu solo la. ñëpp ñëpp laa wax man kay ñëpp laa wax man kay wax na la bu ñi di def ñi di suuf du dem il faut ñu xam ko te loolu daf ñuy gën a tardel il faut ñiy tuur suuf nañ xam ne seen tuur suuf boobu dem day gën a tardel dëkk bi rek parce boo jëlee ma def la ko nañ fàtte bés xol yi ànd doon benn mag ak ñu juboo na yaay yi wax na papa yi wax na mag yi wax jëkkër jabar yi ñu wax na ñëpp sëriñ yi nañu wax. mais loolu foog askan wi yaru. Ah, <laughs> colonel waaw mais yar bi yar bi si wax bi la comme nga xam nga. xam nga affaire bi doo jub rek ni ñëpp yarutee par force. Mhm. mais progressivement la. nañ commencé wax te poser ay acte ni ma la wax di leen jox seen war. nit di bu fekkee am nañ droit terrain wala yoolu wala am nañ droit kii ñu jox leen ko normalement amul saraxo amul ñaan amul amul sous nañu jox seen droit. dekkalaat surtout le service civique national par exemple maa ngi dégg benn gaañ la xam nga xam Pape Abdoulaye Touré la ñu xam jàppoon dóor ko gaañ ko mu ne bi mu génnee ba tey certificat médical mu ngi daw ci kanam. mu mm. a a des li ñuy def ñu xam ne seen droit lañ leen ko droit tam nañ ko wax du sa droit amoo droit na mais di lay dawloo guddeeg bëccëg daal man daal je d'accord nañu naan ce pays est à refaire à tous les niveaux service civique national mën na nekk solution bu ko doolelee par exemple. waaw bu ñu ko doolelee service civique bu ñu national bu ñu ko door a sànc. lan a apporter. service civique national comme ni ma la wax c'est comme armée. ok c'est c'est que seulement du ay militaire arme aux frontières mais c'est des agents. des citoyens yoo ay agents lañ aux ordres encadrés par l'armée formés et qui servent dans tous les domaines agriculture dañu fay nekk dañuy am ay formation de de corps agriculture. Okay. même circulation day am même euh, sécurité day am boo xoolee volontaire de bu ñu leen formé ba pare leen di dispatcher dans le Sénégal fu am préfecture fu am euh, gouvernance fu am ay yenn mairie dañu fa mm. yóbbu mm. ñu dem jàngi fa jàng boobu genre yi immersion la pour am un peu d'expérience pour xam lu xew pour mun a am njëriñ seen bopp amal njëriñ Sénégal parce que bu seen durée bi jeexee bu ñu génnee yóbbaale une petite expérience boo xam mun nañ si ibbi seen entreprise wala liggéey si wala sax fi ñu doon liggéey sax mun na am sax gars yi jël na fa ñu dem mooy mu ne lu ñuy wax don de soi payer l'impôt du temps dama liggéey sa sa dëkk ba pare door a laaj loolu dëkk bi mën a defal. il nga def dara mm. pour en retour nga mën a laaj dara donc service civique national man tam comme ASP rek bu ma sañoon dañu leen renforcer bu baax a baax ut ay partenaires financiers ONU les les volontaires de l'ONU wala UNICEF wala gars parce que volontaires yi du ay salariés ay prime la rek la. loolu cherul da leen di neexal rek. leen neexal rek di leen liggéey noonu il faut les gérer parce qu'ils sont encadrés. ils sont encadrés pendant deux ans gérés on les note on les fait travailler jàngal leen liggéey. Mhm. loolu dañu war jàngal ñëpp liggéey mais nag du ma du ñu jàngal liggéey ñu pare nag ñu sànni si mbedd bi. il faut que ñu xam ne bu ñu leen jàng liggéey bu ñu paree dañu am espoir. Mhm. comme que chef lañ dëkk pendant deux ans en tant que stagiaire amuñ dara bu paree tamit ñu jéem leen dugal fenn wala jéem leen accompagner ñu ubbi seen mhm. entreprise wala dara. loolu tamit il faut qu'on soit honnête mooy ah am. ah oui y a y yoo xam ne dañuy génn ci armée bi libéré après duñ am leen. luñ def mais man bi ma nekkee service civique national am na ay corps la pêche. yu ñëwoon seet si ma fa ba mu fekk ma ñëw la mais ñu ngi chômé amul dara ñoo cherche ma mhm. te pourtant ñoom ils ont été bien formés ils ont été dans les quais de ils ont été dans les ports ils ont été partout mais ces gens là lu mu bon bon am nañ benn xam-xam tuuti mais mënoo leen jël dugal leen fenn nank-nank wala former leen en coopérative ou en GIE ñu accompagnement dafa baax ci xale yi même boo leen joxul xaalis bi accompagner encadré leen wax leen ñu liggéey utal leen ay débouché bu leen jox sa salaire utal leen ay débouché encadré leen teg leen ci yi demal seen bopp hmm. mais bu ñu encadré wu leen kenn faale wuñ parce que kilifa bi rek la ñu faale kenn talul kenn. Ah, loolu parfois mun na nekk source d' insécurité. man ah oui? personnellement de fair benn sondage temps yi ma doon couvrir les cours d' au tribunal par exemple yenn crimes yi yenn délits yu garaaw yi soo ñëwaan colonel ce sera la dernière question maa ngi la gis yaa ngi xool question bi souvent da ngay gis ne euh, ay militaires la ñu woon ils ont fait le le, le service militaire. xam nga ñooñu ils ont appris à manier les armes euh, xam nañu xeex xam nañu truc donc libérer leen amuñu luñ def nga bàyyi leen waat noonu ñuy taxawaalu est-ce que mënul nekk source d'insécurité. mën na nekk source d'insécurité parce que itam même les djihadistes les terroristes peuvent les peuvent les recruter hein. Oui. parce qu'ils savent manier les c'est ça te xam nga sénégalais comme la bu amul dara xool na jéem na parce que bu ñu la formé militaire tam am na benn attitude boo am benn comportement boo xam ak benn discipline boo xam da a nga jéem a rester digne. même boo amul dara da ngay rester digne parce que ñun dans l'armée mm, <coughs> mais nag waa ji bu demee ba sës ba sës ba sës dama ne bu sa doom feebar wala sa jabar feebar. Mhm. amul lu mu koy fajee wala sa yaay feebar. amoo loo koy fajee. nga ñaan nga ah. ñaan joxuñ la nga leb joxuñ la man du ma seet sama yaay muy dee wala sama baay mu dee ndax xiif wala gabar garab. Mhm. dana jéem a sàcc. insécurité nga noonu déjà bu fekkee amu fu may sàcc itam ma tàng xol di yuuxu di wax jihadiste bi nekk di recruteur bi nekk fee gis ma hmm. oo oh, moo jox ma deux millions ah. par weer ah eh, la sant nga def tu ah foofu la ñu war a éviter yegg foofu xale yi servir xale yi jàng am expérience liggéey bu ñu paree nañ leen jox seen warugar hmm. nañ leen jox seen droit comme que loi bi dafa ne boo defee deux ans après nañ defal contrat même buy dee nañ la ko jox hmm. wala CDI mais di lay liggéeyaloo pendant dix ans comme ASP yi ak volontaires yi liggéey bu deux ans génn di wër di ut fu ñu dem amul fu ñu dugal c'est pas normal. Hmm. dans l'armée suñ militaire bi ñu defee deux ans balaa ñuy génni tam dañuy def ay formation ñun dañu def ay formation de qualification en emploi muy menuisier muy électricien muy dawalkat muy li mais bu ñu paree tam ñun dañu am benn agence bu ñu wax agence de réinsertion sociale des militaire hmm. militaire retraité mën nañu dem enregistré foofu. mën nañu liggéey ci mbéy bi mën nañu nekk ay chauffeur mu bu ñu leen ooyee rek. pour ay travaux ñoom ñooy joxe gars yi am liggéey. ah oui gagner dignement leur ah on les laisse comme ça on les laisse pas comme ça comme des va nu liggéey loo nañ leen deux ans ils ont payé l'impôt du temps ñu tam am nañu cër bu ñu dañu di former encadrer leen utal leen fu ñu utal boobu la gouvernement dafa war a jéem a orienter xale yi jéem leen accompagner. jéem leen utal ay débouchés par exemple defal defal faveur ñi def le service militaire. ah am un petit bonus au bu ñuy formation bu ñuy recruter dans la fonction publique. mais nañu xool ku de ku servir man la man de je suis performant mais booy wax fi ñu ne ah non on est tous on est tous égaux waaw demal defi militaire. ñëwal sacrifier deux ans pendant pendant la vie ah ko yëg. Mhm. waaw soxna si. jërëjëf <laughs> colonel maa ngi lay gërëm bu baax baax. merci gis naa la yaa ngi xool heure bi rek. <laughs> mais ñu ngi lay gërëm waxtaan bi amoon na solo yow moom waxtaan ak yow si yooyu dafay euh, am njëriñ parce que souvent ay solution yu am am solo ngay génnee. Ah. foogoon naa ne nag da ngay xalaat def politique parce que dégg naa lu bëree bëri. nga non gis man xalaat naa ko. Ah. dem naa boo xoo ay militaire naa ne gi nga nag bu ñàkk fay bàyyi dëkk bi gaa yàqu ko dëkk bi ñëpp ko bokk suñ doom yaak ñëpp. Ah. ñun liggéey nañ militaire jeex na mais duñ toog dëkk bi yàqu parce que bu yàqu suñ doom yi ñoo ci tonn kon il faut ñu wax wax ma waxoon pële di yeewu di saaga di dóor mais man j'aurais bien ne woon nag seen conseil mais man bu ngeen bëggee man mën naa ñu mais il faut que wax ñu ne ah non non conseiller ko kon damay wax parce que nga américain yi. am na lu ñuy wax xam am na genre réunion yi mel noonu ah mais le chef bu ñëwee ñëppay toog ñuy wax ku nekk wax parce que nit boo leen di administrer. nit boo leen di jiite di investir ci askan bi ci ci localité pour ñoom. mais da nga leen di laaj loolu laaj lu mais doo ñëw rek def ay pavé rek di leen def ay laaj lu ñu bëgg mais boo ñëwee def lu neex jël xaalis bi dem ah, man de j'aurais bien aimé faire la politique mais pas la politique politicienne di saaga di dóor du ma ko def nous on est dama bëgg a toog wax a gars yi luy politique de développement waaw man loolu laal vraiment bu amoon te wax naa ay kilifa fii mais yéen ndax duñ duñ politique mais gars yi ne ah, booy on est militaire mais on est militaire <laughs> ah, dugal seen loxo ci réew mi. ni muy doxee am nañu expérience. am nañ volonté am na am ay connaissance foog naa war nañ mën a comme ni ma la wax rek waruñ toog di xool dëkk bi war nañ mën a dimbale dëkk bi loolu tax loolu tax ministère euh, agriculture ak ak ñoo seet si ñu foog naa. ñëw foofu <laughs> jërëjëf en tout cas. <laughs> amal ngeen njëriñ euh, Sénégal ñu ngi lay sargal à travers euh, ñu ngi lay sargal yow di sargal aussi les forces de défense et de sécurité à travers yow parce que yéen ñu tax di nelaw ba yandoor ni ma koy.